ndeysaan pakalaa ngi noonu bu mbuur ndeysaan gonek parcelle geek pakala bu pakala bu moo ngemb ngemb ñuul takk ci sagar bu xonq woon ñu càmmoñ gonek parcelle ya ngemb ngemb ñuul takk sagar bu weex woon ñu di joor oh ca arène nationale arène nationale gone gi Siteu bu Ngor mboot na mboot mu rëy Bébé Bismi eh, gone gi mag ñi dee leen def ndànk xale yi mag ñi dee leen def ndànk xale yi xale yi trois repas yëpp la def danoo am doole te dañuy ndekki añ reer xale boo ci bëgg a jaay doole du sotti pakala daan na ko